bëri na ay mbedd yoo xam ne ci dëkk bu sell bii di Touba bu ngeen fa jaaree fekk ngeen mu leer nañ yàlla ak seen i téeméer a tax Touba ca kanam fekk na fi ay poto lamp waaye jënd na ay lamp leeral li ko dalee ca jumaa ja ba fii ci kër Serigne Sidi Mokhtar gi ñuy ñaanal sunu borom fayal ñu Touba ca kanam jënd na ay lamp jógee ca jumaa ja ba aliya fa Serigne Fallou daan liggéey di ko indi ci jumaa ji muy juróomi kilomètre mu leer nañ diggoon nañ leen ne diggante kër Serigne Sidi Mokhtar ba ca hôpital ba nga xam ne fa la Touba ay poto làmp fa amul waaye Touba ca kanam dana faggu ay làmp faggu na ko ba noppi dana wut ay poto yu dëgër câble diggante kër Serigne Sidi Mokhtar ba hôpital ba lamp yaa ngi nii mbokk poto yaa ngi nii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 فنجني واخفض له أوسارا وكل من عابني أو مالا إلا يفعت خدا أو مالا وكل من ستمني أو لاما فأبلغ توبة واستسلاما وكل من أساسا نوبيا فليقل قلبه يا ربي فلتكفني أسى جميع العالمين والتقي مساء يا رب العالمين وجل بناي بنا آفيا يجرني إلى خيور سافيا وجل بناي بناي وامل بسنة وعلم واجعل بناي بنا الاعتداء والت سفيان كيد كل سيتدا وجل إلهي مسكري توبابا مثل اسمها بجاه خير من na ci kilifa bokk ci li nga xam ne lu jëm ci wàllu éclairage public ci dëkk bi moom la ko commune bu Touba dénk ci liggéey sëriñ bi di def liggéey bu amam solo ak sëñ Mor Lo mi xam ne koo xam commune bu Touba xam ko ci ay yitteem noonu lañ taxawee tamit ak sëñ Baara Jaxate mi nga xam ne moom la fi moom la fi docteur Sourang yabal moom ñi xam ne ñoo nekk ci hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim bee nga xam ne li tax ñu taxaw fi say ci loolu la jëm kon santaat mbooloo mi nga xam ne teew nañ fi yëpp membre Touba ca kanam yi ngir réceptionné poto lampe yi nga xam ne moom la ñu commandé ci liggéey bi liggéey bi jëm ci wàllu éclairage public ndax ku nekk xam na ne Touba ca kanam bi muy dugg ci wàllu éclairage public leeru dëkk bi Cheikh Mouhamadul Mountakha moo ci joxe woon digal jaaree ko ci Serigne Abibou boobaak léegi nañ ñu ci def liggéey bu yaatu boo xam ne day mel ne ñëpp mën nañ koo seede euh, ak si woon nag ci phase bii nga xam ne moom it bokk na ci yi sëriñ bi joxe ndigal te mooy li commencé fii nu nekk euh, di Tanahim nekk kër sëriñ Sidil Maxtaar yàlla ñu ko yàlla dolee fayal jaar ko ci sëñ ay Aïcha mi nga xam ne moom it membre na ci Touba ca kanam ñuy wàccee fii tey lamp yi ci buntu këram ngir ne fii xëy na moo gën a jege gën a jàpp ne fi ouvrier yi nga xam ne fas yéene na leen def liggéey bii euh, lamp yi ñu fi wàccee tey nag mi ngi toll ci cent quatre vingt poto cent quatre-vingt-dix moo war a tàmbalee fii ñu nekk di tan xim kër sëñ ba ba muy àgg ca hôpital ba ba wër ko biñ ko xaymaa noonu lay toll bu ko defee euh, jëmmi pile bi fi war a nekk jàppandi na câble yi nga xam ne tamit moo ko war a alimenté commandé nañ ko ba ñëw na ba pare ouvrier yi nga xam ne ñoom la ñuy waxal tamit wax nañu lépp ba noppi nga xam ne tàmbali moom lañ taxawoon tey jii di ko réceptionné ànd ko ak euh, Serigne Abib mi nga xam ne ci ndigalam ci la ñuy dox ak ci ci la ñuy waxe mu teewal fi Cheikh Mahamadou Mountakha mi nga xam ne moo joxe ndigal lii ak sëñ Mourtala mi nga xam ne ci wàllu éclairage public Touba Ca ci def dara lu dul ne da cee déggoog ñoom ndax it nag domaine la li ci Touba Ca Kanam di def ci wàllu commune bi day mel ne da koy def ci biir domaine boo xam ne ci moo tax jamono bu nekk dañ ci jiital sëñ Murtala lu muy ànd ceeg moom mu am ci taxawaay bu rafet nag ak waa commune bi ci njiital sëriñ Abdou Lahat euh, sëriñ Abdou Lahat Ka nga xam ne lamp yi buñ ko fii def hôpital baa tax ngir yoon bii day yoon woo xam ne yoon wu xa a xat la ba noppi lëndëm ndax bari nañu fii jaar ñoo xam ne nemmiku nañ ne lëndëm bi tar na xëy na loolu moo tax Cheikh Mamadou Mountakha joxe ci a sant nag sëriñ Tuubaa bu a baax ci lii ndax dëkku sëriñ Tuubaa bi sëriñ Tuubaa du ko fonk lool comme képp ku koy taaral rek ñun ànd nañ ci mbégte te di ci ànd ci xel ak doole ak lépp ndax dëkk bi ku ne xam na ne xar kanam gi soppeeku na ci éclairage éclairage loolu ñëpp xam nañ ko te Touba ci kanam yi dox ci jéego yu yu kaweek yoo xam ne ñëpp teg nañ seen bët ndax euh, commune éclairage moom la war waaye Touba ca kanam feeñ nañ ci feeñ jàppale ko ci jàppale goo xam ne ñëpp teg nañ ci bët te nag nit nag bu defee lu baax des wax des ko def si nga ndax man mi nga xam ne maa ko yor ci diggalul Abdou Lahad Ka monsieur le maire nga xam ne moom it dëkk bi yitteel na ko bëgg na lépp loo xam ne war la mooy taaru dëkk mu doxee ca nam ca war a doxee waaye loolee nag maa ngi koy xamal ne ko Touba ca kanam ànd nañ ko ak ñun ndax ku ne xam ne commune ak euh, Touba ca kanam dañoo wute aw doxin ndax la Touba ca kanam man ndax commune lu muy def lépp ci ay procédure la koy def mën naa yeex te nit procédure commune kon am na léeg-léeg jaadu na ñu am collaborante ñu mel ni euh, Touba ci kanam loolu nag man mi nga xam ne maa ko yor man maa xam seeni jóogo yi nga xam ne ñu ngi ko ciy def ak jàppandal gi ko ndax bari na fii nii rek ñu taxaw muy Darou Moussi ba euh, garas Darou Moussi ba fii ay kilifa kilifa woo nañ ma di wax lëndamaay Touba ci kanam lu def mel na ni commune moo ko def it ci lu mu mel na ni ci kanam moo ko def ndax Touba ci kanam dongay seen Touba lañ yoo xam ne ñépp dañoo jël seen alal di ko ci dugal te li nga xam ne nag ñi ngi ko ci dugal ñi ngi koy def ci dëkk bi nit ñi di ko gis joxe wuñ seen ñaar téeméer yooyu ñu leen di ñu leen di muy naax saay ne xam ne ne ñaar téeméer yooyu mi ngi dugg ci dëkk bi ñi ngi defa ay poste de santé éclairage bi ñu ngi ciy dox assainissement bi ñu ngi ciy dox defar nañ fi ay tëli loolu lépp ku ne xam ne ne kon bàyyi leen xel yéen mur yi lii ngeen di def ci Touba ca kanam ma ngay dem fa mu war a dem di sant nag sunu waajur wii ñu taxawal muy sëñ Abibu di ko ñaanal sëñ Touba guddal fanam te wéral ko ndax lii mu jiitee de wax dëgg taxawaay na ci taxawaay boo xam ne ñëpp la ko taxawal ndax pëstéef rek la ci doxe xoolu ci lu mu am ndax lu muy am lu ne Sëñ Tuubaa defal na ko delloo jukkal Sëñ Tuubaa moo tax mu laxasaayu doon lim lim doon mu jëkk teg ko fee comme ni ko waajuram defaroon mu Sëñ Fallu bëggutoon doon dara ci Sëñ Tuubaa doom jaag lépp da koo jël jaay ko def ko seer bi loolu moom la taxawee ci taxawaay bi yàggul dafagul ñaari weer Touba ca kanam indi ab ambulance bu mucc ayib hôpital bi ngir gën a yombal jàppale askanu Touba yi nga xam ne léeg-léeg ñu ñëw ñu war leen évacuer fenn ci dëkk bi wala war war wuti ay mbir ci dëkk bi ñu indi fa ambulance bu mucc ayib tey bu lii amaatee ñu ni toll na daanaka ci téeméeri poto lamp ak juróom-ñeent fukk yoo xam ne dina tàmbalee fii kër si Muxtaar ñëw ba hôpital ba ba wër hôpital bi kooku ñun ak cant rek ak gërëm lañ ci am heure bu ñu réunion am agent yu ñëw ni ñun démb ci groupe dañu agressé fii wala dañu dàq wala nangam ñu waxee li ci li mel directeur ni leen franc bàyyi leen ndax waa Touba ca kanam war nañ fi indi ay làmp di ñaan rek képp koo xamante ni jàpp nga ci Touba ci kanam ak li nga ci def muy sa alal wala nga ci participé ngir ñun ñu mën ni ni poto làmp yi war a leere yàlla nañ say mbir leere lu des jublu ci liggéey bi Touba ca kanam kat luñ leen mës a wax def nañu waaye lan lañ koy defee seeni ñaar téeméer yi nga xam ne dafa barkeel bay dem ci barabu fajukaay yi di dem ci assainissement di dem ci daara yi di dem ci leeral dëkk bii nga xam ne bu leer la yitte rek la mbokk yi kon la leen Touba ca kanam waxoon ne diggante kër Serigne Sidi Mokhtar bu hôpital ba faggul nañ ko ay poto làmp yu yees tàq yu mucc ayib nag mbokk yi faggul leen it ay làmp yoo xam ne bu guddee mu tàkk bu bëccëgee mu fay kon fu ay mën a jógeeti jëm ca l'hôpital ba diggante juma ja ba ba ngay yegg hôpital bi incha allah ci kàttanu yàlla Touba ca kanam dina ko leeral nañ ak seen i ñaar téeméer mbokk yi weddikat gis bokk ca kon ay ca mburit ñàkk cee bokk wóorul de mbokk yi lii ku ci sa ñaar téeméer demul war ngaa seetaat sa boppa nag jërëjëfati Sëriñ Tuubaa misrak mi abi jaayi xayri man